jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi amati nañ kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne fii ci wasaare lamb tey nag ki ñu fi woo day fa sëñ Fallou Luc Nicolaï li traditionnel mise bi doon 3 millions mbokk yi ay xale ay champion ay ndaanaan nar fee daje wanewaat seen bopp ci wàllu lamb waaye rawatina li nga xamante ni rëy na loolu mu defal ko presse bi jëlal leen oto Dakar ba fii ci Nialing disposition yi nga xamante ne presse bi yëpp dañ koy soxla sëñ Fallou Luc Nicolaï jëlal na leen ko ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ne bëgg na ko ci làmb yàlla suñ borom defal ko ci lu kawe njortam waaye duñ def leen lu dul dugg ci biir wan leen ambiance wan leen cosaan wan leen culture bàyyi jiili aadama kaay waaw waaw ndeysaan champion yaa ngi noonu am na lu xew ci bunt ba

sumay suma ndangaan mak na jalane Obar sumay suma ndangaan mak na jalane Obar sumay suma ndangaan mak na jalane Obar sumay suma ndangaan mak na jalane wa sumay sumam danga nak na calande wa sumay sumam danga nak na calande wa sumay sumam danga nak na na calande sumay sumam dangan mak na jalane Awa sumay sumam dangan mak na jalane Awa sumay sumam dangan mak na jalane nuyu naa la. Ah, maa ngi nii. maa yaa ngi gis Usine Doolé ci làmb foo ne woon. nga de laxatu tuuti rek. waaw. looloo taxoon. mu mel ni làmb namoon na la mais daa mel ni yaa raw. rawoon naa ko trop trop trop mais xam nga rek. loolu day am ci làmb. yenn saa boo demee ba xam ne affaire bi fu mu toll nii day xaw kii da ngay xaar tuuti. ok bërëdër yi lañ bëggoon mais comme gars yi nanguwuñ ñoo jël ñu wàccaat ci booy rek defaraat suñu yaram yokkaat contact yi lii contact rek lañ ko def di xaar bërëdër yi waaw. sa absence ci lan nga nekkoon. waaw xam naa damaa yoroon malaat yal na ko yàlla yërëm fu mu toll nii sama papa dafa mujjoon gaañu sax daanaka yor naa ko at boo xam ne dafa nekkoon tawat. waaw ma ko doon jàppale ci yenn yi ñib si village doon jàppale sama mag ji foofu looloo taxoon ma mais bi nga demee gis nga ay xale yoo xamante ne ñu ngi def jéego di jëm ci kanam yan xale ñoo la gën a marqué ci diggante. waaw lamb noonu la baaxoo lamb noonu la baaxoo chaque jour da ngay bëreeg say mag bëreeg say morom bëreeg say rak fu mu toll nii booy am nañ relève bu baax parce que fu mu toll nii mbër yi ku la ku la ko ci wax rek yi nga morom moo xam ne moom moom moo gën a taxaw sax waaw parce que boo xoolee ñoom Doudou Sané ñoom Ibou bu ah. boo yooyu ñoom uh, Toubacouta ñoom Selemele ñooñu ay booy yu baax lañ ñuy ñëw ci làmb ji fu mu toll nii te uh, am nañ wàll ci làmb ji nag. beneen xale bu génn muy tas yaakaar noo ko gisee. waaw loo kooku itam maa ngi koy dégg mais boobu ba léegi gisaguma ko xameeguma ko ci gaay mais mu ngi def jàll war de maa ngi koy dégg bu baax a baax a baax waaw. jërëjëf Samb waaw ok. kaay Adama kaay. Petit Lo. ziar la. ci loo ne. sant yàlla bu baax alhamdulilah. depuis waaw ah, maa ngi fi maa ngi ci àll bi rek di bëri rek. depuis juru gardien. ba léegi ah, maa ngi ci àll bi di bëri di compétir. waaw fan nga dem. ah dama ko naan lul seesen dama ñaax ci poids lourd waaw. lul seesen ñëwaat fi waaw gis nga ñëw fii di bëri ci poids léger rek di ñaan yàlla defoon sutura waaw. Hmm. sa combat actuellement noo ko gisee actuellement. sama combat dóor wala. bëre dóor. bëre waaw ñu may doon combat rek mais jafane na quoi booy dañuy jël di ko delloo jafe na wax dëgg waaw ah, xaw ma li simple bi moo xaw ma ah booy ñu ngi jël avance bi di ko delloo rek mais tamit sant yàlla bu baax waaw. bi mooy sa ñaata sorti sama ñaata sorti ci lutte simple. lutte simple ah moom man yàgg naa génn lutte simple nag yàgg naa génn di bëri. bi koor gi génnee ba léegi bi koor gi jeexee ba tey bi mooy sa deuxième. sama deuxième sorti waaw. waaw mhm. ah, bonne chance kon. waaw ah, ok merci beaucoup. samp na béjjënu kooba bi moom Sélé ndaysaan ba mu dugg see ñëpp dañoo yuuxu waaye gis naa beneen yokkute ak beneen changement. muy Sélé Mélé mi tey changé na ngemb indiwaat beneen ngemb bu weex bu bees tàq boo xamante ni xam naa ne tey la koy doog a ngemb mu ngi noonu dugg si na ci camp compétition bi mais tey xam naa ne fii ci Njaniñ champion yu bari dinañ fi wàcc Gora Sock gis naa ko fa ma nga ca biti Serigne Ndiaye 2 gis naa ko fa ma nga ca biti Sélé Mélé dugg si na maa ngay sont booy fay. Toubacouta léegi mu yegg si ndeysaan champion yaa ngi noonu gis nga ko ma ngay sotteeku moom Sélé Adama gis nga changement bi jugee koor ñëw changé ngemb indi ngemb lu weex tàll moom Sélé Sélé nuyu naa la. maa ngi lay fay naka mu. changement bi ngemb li daa mel ni dañ koo changé. waaw waaw war war a ñëwaat indi lu bees rek. lu waral lool. waaw parce que affaire lamb la lamb boo demee xool mu xaw a kii nga demoon ñëwaat daa am looy defaraat rek mu ñëwaat waaw. actuellement bi nga dugg see ñëpp dañoo yuuxoo lan la. waaw parce que fii sama dëkk la géew gi nii Ngaleñ mosuma fee ñëw daanu lamb bi fii am yëpp muy Mbaling muy Petite Côte bi fii yëpp dama koy jël moo tax ma bëri fi ay supporters quoi waaw. kon tey njort nañ day jël si li mu moom. waaw incha allah yéen a doonaat sama suuf rek comme ni mu ko doon doonee année yi passé quoi waaw. kon merci beaucoup. ndeysaan ndeysaan dugg si monsieur le maire baa ngi noonu xoolee lii xam ne maire bi dëkk ci dëkk bi waaye bokk ci ci defar dëkk bi. defar dëkk bee ko gën. maire mooy yaay. yaay day jëriñ. bu na jëkkutul yaay. màgge dégg. délégation yaa ngi noonu. ndeysaan ñu ngi noonu. Ndeysaan Cheikh Modou Fadel sànq wax na wax ju am njariñ maire mooy yaay

di nuyu suñu mbokk internet yi di la baal ak di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mu senegal nga ñëw fii yëg-yëg bi lan la. waaw bi ñu dugg see dañu kontaan bi ñu dugg see gis mobilisation bi bi ñu dugg see gis engouement bi am dañu xam ne làmb nit ñi namoon nañu ko. askan bi namoon nañu ko euh, Luc Nicolaï nag dafa def la mu daan def mooy saa yi door day commencé ci goxam soog a dem ci biir réew mi mbuur la ko daan defee tey mu indi ko Nianing tuddee ko le maire Maguette Sène ñu gis askan bi ni ñu fi dajee loolu di wane ni làmb daal euh, mooy suñu aada mooy suñu cosaan moo saf nit ñi moo sax ci xolu nit ñi te ku ñëw fii xam ni dëkku aada la dëkku cosaan la. mise bi 3 euh, millions mbër yu bari nañu amateurs yu bari nañu monsieur le maire mobilisé na vraiment suñu xol sedd na. ñuy xaar dugg ci Ama Baldé ak Modou nan nga koy waajee. loolu moom ah je me demande sax Ama ak Modou buñ fi duggee mbaa làmb ji tas parce que ñoom ñaar booy wut mbër yu populaire ba yem ci ñoom bu yaboo nga wàññeeku c'est le du siècle. c'est le combat le plus populaire c'est le combat le plus prisé par les amateurs ñu toog di ko xaar incha allah. ñu ne Père Malick ci télé bu mag dellu ci télé bu mag loolu lan la. waaw loolu dëgg la léegi maa ngi TFM. lu waral loolu. foofu laa ci yem. jërëjëf ci lamb yëpp parce que lamb suñu aada la te dañ cee war a jàpp ñun ñëpp. sa ah? waaw lii moom dañoo bokk mbuur dañoo bokk mbuur ni ma ko bokkee ak Bombardier bokkee ko ak Yékini bokkee ko ak waa axlu lamb dañoo bokk mbuur doomu mbuur la donc moom nag ku mu jàppale tey rek waa mbuur ci war a jiitu moo tax loolu la xam muy redémarrer waat ay activité am saison daal di ñëw tudde ma làmb ji defe ko ci sama dëkk ñaniñ muy sag bu rëy pour waa ñaniñ waaye muy sag bu rëy pour waa Malicounda bii mooy première édition te bu soobee yàlla dina dem ba vingtième édition trentième édition loolu mooy suñu suñu suñu suñu mébét taxawaayu maire ci dëkk lan la ndax ci soxlay waa dëkk ba rek muy guddi muy bëccëg muy ci ndox muy ci courant muy ci njàng muy ci paj ku nekk ku ñu dégg xam ne ci loolu rek la ñuy yëngatu yaakaar moo tax fu ñu dugg population fu ñu jubal ñu jubal fa fu ñu jubalul jubaluñ fa donc maa ciy sant waa population bi yëpp ci sant nag tey waa làmb ji nga xam ne ñoo ñoo xewle tey journée culture la ku wax Nianing xam ne terroir séeréer la ku wax jegeem xam ne terroir séeréer la waaye terroiru làmb la terroiru culture la donc tey bu ñu fi indee làmb ji wax dëgg yàlla indi nañ ko fañ ko war indi. ñu ngi la ci de jéggi woon la. am na ñu kenn moom ren di nga tàbbi ci sax na. jërëjëf yi ñaan yàlla nañ ci am ndam. amiin yaa waaw maa ngi nuyu waa axlu làmb yëpp nag vraiment di nuyuwaat Nicolas di nuyuwaat waa Malicounda chef de village yi conseil municipaux yi responsable politique yi képp kuy nit rek ku dëkk ci Malicounda maa ngi lay sant di la gërëm bis bi tey delloo nañ di ko lig ni ko laay bu baax ndax ñëw nañ massivement ci làmb ji bay jaajëfal ñëpp rek di leen jox rendez-vous à très bientôt dans d'autres parce que ñoo ngi ci culture bi waaye ñoo ngi ci bâtiment yi di tabax ñoo ngi ci santé bi di faj fu ne ñoo nga fa nekkuñ yàlla nag waaye fu ne ñoo ngi fay jéem a nekk yàlla yàlla jàppale te may ñu dem te lépp lu ñu yëngatu. jërëjëf jërëjëf. ah kooku dama koy moo ngemboo lu weex li ndeysaan gis ngeen ko noonu bi mooy bi première génnam moom Gora Sock ndeysaan depuis bi ñu korité ba pare daw na jëli gëj nañ koo gis ma ngay ngàdd ndeysaan ma ngi koy topp Gora mais tey nag gis naa ngemb yu bari yu weex yoo xamante ne ay ngemb yu bees tàq la Gora Sock boo xoolee ngembam lii nga xam ne tey ngemb lu bees la boo xoolee sele dugg séem ngemb lu weex tàll la ngemboo moom it ngemb lu bees la saan xale yaa ngi noonu saan ñoom ñaari ngi noonu dox ci diggante Gora Sock ndaysaan xale ba muy bëreel nag moom lañu xamul mooy kan ndeysaan gis nga mu ngi noonu ndeysaan góor a mbëkk wala déet ñu ngay daw na jëli ko ndeysaan góor a jël na daan na ndeysaan daan na premier combat am ci compétition bi moom góor a soog ndeysaan jeex na wala déet kon combat bi jeexagul ba léegi jeexagul ba léegi may leen ñu. laay laay góor a ko. daan na premier combat am ci compétition bi. kon compétition baa ngi noonu. mu mel ni ponkal yaa ngay waaj. Ndeysaan dox ci diggante Talfa ak Selemele Ndeysaan mbokk yi ñu ngi fii tey ci Nianing sëñ Fallou Luc Nicolaï moo ñu fi woo mise bi 3 millions la ndeysaan li traditionnel usine doole daan na premier combat usine doole daan na mu des ci gën de Talfa ndeysaan ak Sele Mele Talfa ak Sele ñu ngi lewaatoo ba tey ndeysaan Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass a noonu ci digg géew waaye takkul dara moom xale bi ndeysaan ndeysaan Talfa ak Sele doon na ko Sele daan na Talfa takkul dara moom Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass gàllaaj anamu da koo kër ga wala da koo indi tekki ko arbitre bi na premier combat Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass moo ngemboo ngembu Lagos bi ndaysaan di bërek benn xale boo xamante ni ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan plaqué na ko ngàdd na génn na du gàdd na ci diggi géew bi ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Serigne Ndiaye ko mu génn saako yi ñëwaat waaye li ñu seetluwul ci Serigne mooy dafa tardé ndaysaan moo tax talul amul temps takk benn galaajam ndaysaan gis nga daan na wala déet ñett na ko daan na ko Serigne Ndiaye numéro 2 daan na dafa tardé galaaj yi takk ko takkul ñepp rek. ak kan ndeysaan Toubacouta ngi noonu ndeysaan moo ngemboo ngembu Lagos bu ñuul bi ka muy bëreel moo ngemboo ngembu lu xonq li avertissement loo def nee na ko dong mu na ko déedéet mbëkk ma ko moom mooma tout cas daal ay mbëkkante la ndax boo nee maa ko mbëkk moo la mbëkk ay mbëkkante la ñu ngi noonu Toubacouta tey dafa décidé Ndaysaan dafa décidé Ndaysaan ma nga noonu Toubacouta daw na jël Ndaysaan moo ngembo moom mooy njool mi rek moom Toubacouta Ndaysaan Ndaysaan ñu ngi noonu Toubacouta ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi añ na ko jàpp na da koy daan daan na ko daan na ko ba jox nee na ko rendi naa la nee na ko deux la rendi xale la boo xamante ñu xool na nu baaxee. fu ngeen nekkoon. non da nga xaw am tuuti tardement quoi. gis Serigne Ndiaye dugg si takkul dara mu mel ni da ngeen a tardé waaye noonu la ñëwee rek takk ngembam bëri. waaw mais noonu la compétir la quoi mais yàlla dafa dogal ñu tardé quoi mais incha allah suñu premier combat daan nañ ko ñaan yàlla maa ñu jël ndam li quoi. tey lu ngeen indi. ah tey lu ngeen indi. ñaan yàlla maa ñu ndam rek ah. waaw. jaajëf bonne daanu. doon roi des arènes 11 moom Yaxya Diop Yékini ndeysaan ma nga noonu Yaxya Diop ndeysaan ma nga ngi noonu tey sëñ Fallou lig ñu ko laay tëgg journée mu ñëw ci muy wane ni daa tekki ngembam rek waaye loxoom ci wut ci làmb ndeysaan mu ngi noonu l'ancien roi des la Yaxya Diop Yékini ndeysaan ndeysaan na ngay photo ak moom ndeysaan ndeysaan Yaxya Diop Yékini cey lam ndeysaan xanaa miin ngeen waxam ja de dama koy daan dem Joal jàll Banjul waxam la woon ndeysaan lamb saa su ne ngay gis ndeysaan yenn champion yi di génn ci lamb yeneen relève di am génn Mouhamed Ndao Tyson ci lamb génn Yaxya Diop Yékini ci lamb ndeysaan yi ci des yàlla na fi suñu borom bàyyi ba ci kanam a kanam mi nga xamante ni mooy magal xale yi ndeysaan ndeysaan Tyson ngeen ginnaaw ndeysaan dañoo bëgg a def ambiance ndeysaan yax yaa ngi noonu tàccu ne man càmm lu ma da nga ne fii pour jàng la waaye tey jii dañoo baax de gis nga ñëw gis nga Malicounda gis nga Moussa Ndar Mbacké seen mu toog madame Khoudia Faye toog Père Bakary toog SMR toog Pape Meysa toog nga ñëw taxaw Malick loo wax tey ci suñu bés bii nga xam ne moom la ñu ko daa yëkkati jàngal ko Moussa Ndar Mbacké seen loo wax jërëjëf dañuy commencer d'abord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 Et un Sérère ne trahit jamais. Un vrai champion. Un vrai patriote ne trahit jamais sa nation. C'est un soldat qui était parti en guerre. Et quand il est en guerre, il veut élever très haut le drapeau du Sénégal. Et il a élevé très haut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 parlement un peu de magasin en français. maanaam kii dafay nit ku nga xam ne fu mu taxaw dañu war toujours di ko delloo njukkal bi muy làmb bi muy def làmb bu may wax ci moom nit ñi dañ naan dama koo faral man leen dee li mu def moo neex a nett li ba ku koy nett li ñu yaakaar ni da nga koo faral. quand les journalistes français parlent de Michel Platini quand les journalistes argentins parlent de Diego Maradona ou de Léo Messi ils s'extasient mais quand je parle de de sa génération, eh bien, je vais m'extasier parce qu'il l'a démontré à la face du monde et du Sénégal. le maire, je l'ai dit. En français. combat bi Toubacouta dox na ci koom ndaysaan Toubacouta ak ponkal mi rek Toubacouta moom xam naa ne que muy bëreel Toubacouta jël nañ ko fañ ko yegg sori na waaye dina ci génn dañuy génn ñoom ñaar dawaat na dugg ci géew njool rek doole la dina ci génnam déet fiddu na la daa wóolu boppam fàqat nañ ko mu bañ ñu nga ca combat ba jël nañ tànk Toubacouta Toubacouta moytul da ngay daanu da ngay daanu da nga koo xeeb da nga koo xeeb da nga koo xeeb li mu ko may daa bari Serigne Ndiaye 2 ak Ousmane Thiam Ousmane Thiam jëli na ko Serigne Ndiaye ngi dox ndànk ci koom ñu ngi ci compétition bi ñoom ñaar Ousmane Thiam daw na jëli Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye defal ndànk moytul Serigne Ndiaye jëli na ko rëpp na defal ndànk bul jaay doole Serigne Ndiaye ndànk mër ndomba da koy buddi Ousmane Thiam bañ na Serigne Ndiaye Serigne daanam déet du daan wala déet Serigne Ndiaye Ousmane Thiam jàpp ci bopp ba mu bañ Serigne Ndiaye bës na ko daan na ko Serigne Serigne Ndiaye daan na Ousmane Thiam nday Sele ngi bëgg gaawal combat mu ngi koy ngàdd ndax bëre simple nag ngàdd da cee bokk ndaysaan li traditionnel ngàdd da cee bokk ndaysaan dañuy téye seen bopp ñoom ñaar ñëpp ay mbëri mag lañ Sele jàpp na ko fi mu jàpp baax na góor mbot na ko mu bañ Sele fi mu jàpp da koy plaqué da koy daan daan na ko daan na ko Sele Mele daan na góor a soog nee na daan na ko six fois. Allah gaga paska paska ko kay du mën yomb ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar du mën a yomb Antou Ndiaye ak Petit Lo ndaysaan du yomb ant daw na jëli ko Petit Lo ko jàppante ne ñoom ñaar ku ne di déglu sa moroom Ndeysaan génn ngeen ci làng ba ñëw leen fii Ndeysaan ñu ngi noonu mbot na ant mbot na ko Petit bañ mu ngi koy déplacé Anta da ko bëgg a jëli daa bëgg a jeexal komba bi ndeysaan jëli na ko plaqué na ko dina ko daan daanu ko du yomba daanu Anta Ndiaye du daanu wala daan na daan na ko arbitre bi joxe na ndam dox ci diggante guy ak Serigne Ndiaye bu Faas ñoom ñaara ngi noonu fii ci ñaling Serigne Ndiaye plaqué na ko daan na ko daan na ko doole taxul jàmm déedéet ndeysaan dafa yaru nag fair play yëkkati na ko ndeysaan usine doole boo amaatee beneen perte waaye ñu ngi ci diggante Tony ak Neymar Tony Neymar usine doole am na ñaari avertissement ci kaw Sele Mele Ndeysaan xale yaa ngi noonu Petit Lo fi ñu la takk sori na da ngay ñàkk Petit Lo da ngay ñàkk wala déet ñàkkul arbitre bi àtte na Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan mu ngi noonu Sele Mele usine doole ba tey ñu ngi ci diggu géew bi combat bi yàgg na ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi wane boppam ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk kii asaa yi ñu ngi ci quart de luur yi ci kanam takk nañ ko Tony fi la yegg sori na daanu na waaw waaw waaw waaw soo néew ji <laughs> kenn di ko dugal ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar daan na ko daan na ko mécanicien daan na Petit Lo sele boo amaatee beneen ñàkk Serigne Ndiaye 2 ak Sele Mele Ndeysaan Serigne Ndiaye 2 ak Sele Sele Mele Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ay sëñ Fallou Luc Nicolaï bu ñu nee l'homme des grands événements tey ku ñëw Mbour xam nga ko rawatina ñaliñ ñaliñ gii nga di nekk ku fi ñëw xam ne tey l'homme des grands événements plaqué na ko daan daan na ko Serigne Ndiaye daan na Sélé Sélé da ko doon mbot Serigne Ndiaye rocceeku gis lii nag mooy luur bu moom boppam ndax Sélé da koo déclassé mbot lacrymogène ndeysaan moo ngemboo ngemb xonq li noonu moo jàpp waaye moment bi may wax ak fii ci Njaniñ Serigne Ndiaye bu Faas dem na final di xaar combat bi ku daan dem final combat bi mënul yomb génnaan nañ saaku yi génnaan nañ saaku at xanaa loolay géew gi yaatu na jël leen mbot na laa ilaaha illallah Rack Ramazane daan na ko jël bu rëy daan na bu rëy ndeysaan oh. ay waay làmba ay waa la kii lu def ci géew ba waaye génnal yow yanu sa mbër muñ te xam ne làmb yamul ci benn bis bisa ngi ci bis bi dina bañ waaye ñaari xale yi ñu ngi bëre waay ñaari xale yi Tony mii wala Jam Téeri mii ak Neymar ñu ngi laale quoi ñu ngi bëre ah xale yi ñu ngi wane seen bopp loolu mooy làmb Ndeysaan Diassy Peulh dem na final di xaar ci combat bi moo du të Ndeysaan ñu ngi noonu ndaysaan mu ngi noonu ndeysaan Modou Jam Téeri Neymar daan na la Neymar daan nañ jël bu la bett finalu lese ngi noonu ndeysaan dox ci diggante Diassy Peulh ak Modou Jam Téeri mbokk yi ngi ci samedi 15 mai 2021 ndaysaan fii ci Nianing promoteur bu mag bee ñu fi woo Luc Nicolas Enco mise la poids léger baa ngi noonu dox ci diggante Jam Terry ndaysaan ak Diassy Peul ñoom ñaar ñu ngi dégloo daw na jëli ko mu bañ Jam Terry Diassy Peul ñoom ñaari xale yaa ngi noonu di lewoto ay jàmbaar lañ parce que bu la mat 64 litres bindoo xale yi di bëre di bëre di bëre ba dem final ku ko ci jël du sens mérite la ci yow ki ko ci ñàkk démérité woo góorgóorlul defaraat àndaat ak say mbokk ñëwaat ta ni compétition loolu la ndeysaan Modou jam téere ak Diassy Peulh Diassy Peulh tëru na ko tëru na jam téere bañ na plaqué na ko wala déet ndaysaan jaasi pël Modou Jam Téeri ñu ngi noonu ci finalu lese bi fii ci Njaning Luc Nicolas Enko moo ñu fi woo mise bi 3 millions la ndaysaan xale yaa ngi noonu bàkkat yaa ngay bàkk waykat yaa ngay way waxkat yi foo taxaw dégg leen ñuy wax ñaari mbër yaa ngi jàmmaarloo ba tey dox ci diggante jam Modou Jam Téeri ak jaasi pël Modou daw na jëli ko jam téeri baj ndeysaan fatt na suuf saa dugg ci bët ba ndeysaan bët dara xaju ci bët du ay caaxaan du ay fo boo ci dóoree nit ku pañ mu jàpp bët ba bu ci suuf duggee nga jàpp bët ba bët daal bët la tudd ndeysaan arbitre bi siflewaat na Ndeysaan Modou Jam Téeri Ndeysaan ma nga noonu Ndeysaan ak Jaasi Pël Jaasi Pël Modou Jam Téeri ñaari xale yaa ngi noonu combat bi mbaa bi yoon dina gaaw Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ñëpp ngi toog di xaar mu mel ni làmb ji fi mu toll nii ñu ngi xaar final poids lourd bi ndeysaan Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ndeysaan Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ndeysaan Jaasi Pël Modou Jam Téeri ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan yaa ngi noonu en tout cas lu mën a xew mooy lamb ji tey fii ci ñaani ñaning lamb ji neex na trop waaye sonn nañ xale yi guddee nañ ndeysaan gaa yëpp sonn xoolal ma boo xoolee Fadel bu Dakar Buzz ni mu toogee sëngëm buur géwal toog sëngëm nga xam ne toogaay bu yàgg arrangé wul mag fi mu toll nii xale yi rek ngay dégg ñuy wax <laughs> xale du caaxaan barki yénete boo xoolee Fadel xam ne fi dolli sonn la mënatul dara yaa bee ko gën ñibbi rek la bëgg ndax njaboot gee koy xaar fi mu toll nii saa koy xaar ñu ngi koy woo téléphone rek ndeysaan instant yi bëgg noonu la liggéey bi moo moo moo li tubaab naan situation oblige situation bi moo ñu obligé loolu kon ñu gën góor góorgóorlu rekk ñaan jàmm ci réew mi boo gisee fee ca Israël ak Palestine la fa xew neexuñu ndax ay réewu jullit jullit yoo xamante ne dañuy dugg ci bërëb bi ñuy jaamoo yàlla nga dugg fa di leen di dóori bal nga dugg fa di sànni grenade lacrymogène di leen xañ jaamu gi nga xamante ni moom la ñuy jaamu suñu borom te teguñu ko fenn képp kuy jullit mettitlu na ko képp kuy jullit naqaru na ko képp kuy jullit keroog am nga loolu lu la metti ci say moroomi nawle jullit woor ci weeru koor amul luñ leen di jox ndogu lu dul xeet boobu jël na ko dina ko daan wala déet dina ko daan da koy daan daan na daan na ko ndeysaan Modou Jam Téeri daan na Diassy Peulh la ma la waxoon la daan na Diassy Peulh Badiana ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas Racramassal mu ngi toll ci final bi mbokk yi ñu ngi ci samedi 15 mai 2021 il est actuellement zéro heure douze minutes fii ci stade bu Nianing dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Lac Ramazel bu Bandiana Serigne Ndiaye jiital tànk ndijoor Lac Ramazel jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar ñu ngi bëre waaye Lac Ramazel ndaanaan la ndax compétition bi ñi fa nekk ponkal ñëpp moo leen éliminé Serigne Ndiaye dox na ci koom lu mu nar da ko bëgg a jaay doole wala déet Lac du bàyyi. Serigne Ndiaye ak Record Mazol buñ fa jaana <laughs> Serigne yaa ngi bëre xale bu mën a bëre waay ndeysaan ndeysaan da ko doon gàdd da ko doon gàdd mu daanu ndeysaan da ko doon gàdd doon gàdd da ko doon gàdd ndeysaan kaay dafa kaaw ndeysaan mu koy xool ndeysaan mu koy xool ndeysaan mu koy xool ndeysaan ñu ngi noonu waaye da ko jugal kii day xaw mbër yi rek ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ma ngay xool Rack Ramazal ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas Serigne Ndiaye xëcc na ko Rack Ramazal bañ na ñu ngi bañ mu ngi bañ Serigne Ndiaye koy ndeysaan ndeysaan ndeysaan jël na tànk ba mbot na ko ndeysaan daan na ko Serigne daan na ko Serigne Ndiaye daan jël na compétition bi ci kaw Adama. non dara xewul dafa teg loxo ma xawoon dindi xaw ma dóor ko mu dal loolu kese la mais tey billaay walaay ah, sama loxo moo mais tey moo barke Sëñ Tuubaa. waaw loolu dal na wax dëgg yàlla dal na wax moom. vraiment billaahi aw ma yéene boobu quoi ak Cheikh Rafal ma jégalu lu baax billaahi. depuis avant ba léegi. bi mooy sa deuxième sortie boo tey mu mel ni da ngaa jël si li moom moom lan la. waaw mais dara sant yàlla dara ñun suñu biir kenn mënu fi waaw tey da ngay ñëw tey xewle su ma ko ñëw kenn xewle waaw bu def bu demee nii yàlla jël drapeau bi. di sant yàlla ba sant su sant samay coach nag ak ah, ñu ne àndal ñu seen fay maa ngi nuyu yaay bu baax ñu am yaay fa sama papa. non kooku kooku mu ngi wax si moom li mu ne si man dafa bari trop loolu mu ngi wax si ay médias ak Seydina Mohamed man dafa mu yàgg fi ak waa